ñaan suñu boroom mu nangul suñuy jaamu yàlla te jéggal na suñuy bakkaar di ko ñaan mu sàmmal ñu suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha xafizahu llahu wa taala wa ayadahu wa nasara te yokk ko wér ak kàttan ñuy dellusi rekk di fàttalente ci tomb yi nga xam ne dafa jëm ci amalil qulub mooy jëfi xol ndax waxtu wu nekk dañ ciy dellusi di ko nafar ndax solo su am ci dundu jullit bi ndax jullit bi am na loo xam ne ay cëram ñoo koy jëf ci kaw waaye am na loo xam ne ci xolam lay nekk te loola nag mooy lal jëfi kaw yi la ca xol ba bu baaxee bu jubee la muy jëf ca kaw suñ boroom dana ko nangu te dana jub tomb bi ñu ci bëgg a fàttalente rek mu jëm ci gëm yàlla ak wéetal ko ndax loolu xol ci lay nekk jàpp ci sa xol nangu suñ boroom ak nekkam nangu ne moo la bind nangu ne moo yor sa lépp ba noppi nga di ko jaamu te wéetal ko ca jaamu ga loolu day loo xam ne mooy cëslaayu diine mboolem yonent yi yàlla mosa yónni ak wàlli yi nga xam ne ñoo leen donn di yeesal diine seen yitte ja jiitu mooy defar xoli jaam ñi def ci tawxiid def ci imaan bañ gëm seen boroom di ko jaamu di ko wéetal ca jaamu ga gëm yàlla nag buñ ko waxee al imaanu gëm dafa am ay ponk ca ba ca njëkk mooy gëm suñ boroom ci boppam boo gëmee suñu boroom gëm ne sàkk na ay malaaka yoo xam ne ñooy ay ndawam gëm ne wàcce na ay téere wax ci jaam ñi li mu bëgg ak fi mu bëgg ñu jaar fa ak ni mu bëgg ñu mel ni sàkk ay yonent yu koy jottalil sàkk bis penc boo xam ne ca lay àtte jaam ñi waaye gëmit ne lépp lu am suñ boroom moo ko dogal moo xam lu la neex la moo xam ab safaan la kon gëm yàlla ci xol lay nekk làmmiñ du ko tudd waaye ay cër di ko jëfe nit ki kon bu ne gëm naa yàlla wax ko ci làmmiñam rekk du doy waaye dafa war a feeñ ci ay jëfam muy jëf-jëf yu baax yi nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala digal moo tax ñu gis ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu wu nekk xadis yu bari mu ci lënkale gëm yàlla ak jëf yu baax gëm yàlla ci xol lay nekk waaye li koy dëggal mooy jëf ci say cër jëf yu baax moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di wax ne képp ku gëm yàlla gëm bis nay wax aw yiw walla mu noppi waxaat ne képp ku gëm yàlla gëm bis nay teral dëkkandoom wax ne képp ku gëm yàlla gëm bis pénc nay teral ganam kon day lënkale waxtu nekk gëm yàlla googu nga xam ne mooy tax nit ki di def lu baax ak gëm gëm bis pénc bi nga xam ne bu dee def lu baax dina gëm ne ëllëg lu baax loole suñu borom dina ko ko fay ñaar yooyu bu nag nekkee ci xolub nit ki dana ko sawarloo ci def lu baax moo tax yonent bi sallallahu di wax ne nañuy dëggal suñu gëm yàlla ak suñu gëm gëm bis ci jëf yu baax mu tudd ci yooyu nga xam ne jëf yu baax la te mooy di teral sa dëkkandoo di teral sa gan ak yu mel noonu ak di jokk ak bokk am na ci beneen xadis boo xam ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam da caa teg ne wa man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyasil rahimahu ki gëm yàlla gëm bis pénc nay jokk ak bokkam kon yooyu nga xam ne ay jëf yu baax la nga xam ne ay misaal la ay mboolem jëf yi am njariñ te baax ki gëm yàlla gëm bis da ko war di def sëriñ Tuubaa radiallahu taala anhu bi muy firi xadiis boobu ci majmuwa bi dafa wax ne képp ku gëm yàlla moo di ne dana gëm ne lépp lum jëf walla mu wax ko suñu boroom xam na ko nee na ki gëm képp ku gëm bis pénc mu ne dana gëm ne suñ boroom dina ko fay lim jëf ci àdduna dina ko ko fay bu bis pénc incha allah bu àllaaxira nee na nag ka xam loola na wax lu baax walla mu noppi ci aw ay kon gëm yàlla gëm bis pénc gëm yàlla gi moo lay wax ne loo def suñ boroom xam na ko gëm bis bi mooy nga gëm ne kon lépp loo def ci àdduna ci lu baax bu yomal xiyaamee suñu borom subhanahu wa dina la ko fay kon noonu nga xam ne ki gëm yàlla day feeñ ci ay jëfam noonu lay defe ci moom ak toppi ndigal ak bàyyi tere ca topp ndigal ak bàyyi tere day àggale nit ci daraja ju kawe kawe kawe day tax suñu borom subhanahu wa bëgg nit ki nga xam ne àgg na foofu ndax topp ndigal ak bàyyi tere loolu mooy tax nit ki am taqwa ci ñi am taqwa mooy ñi nga xam ne ñooy xej ji suñu borom yi nga xam ne ëllëg duñu jàq duñu tiit ci lépp lu suñ lu ñu lu ñu bëgg suñu borom subhanahu wa defal leen ko ala inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna alladina aamanu wa kaanu yattaquun kon bi nga gëmee di jëfe ay ndigal di bàyyi ay tere loola mooy def ci sab xol at taqwa kon gëm yàlla noonu lañ ko war a déggee ne ci xol lay nekk waaye day feeñ ci ay jëf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 رسولنا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول sooner. أكبر الله أكبر kon ñu bàyyi xel bu baax ne gëm ak pas-pas mooy tax nit ki di jëfe ndigal di bàyyi tere te loolu mooy tax mu bokk ci xej gi suñu boroom ñu xam ne gëm yàlla kon ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ay jikko la ak jëf aki melokaan moo taxoon mu waxoon ne gëm juróom-ñaar fukki xaaj la ak lu topp ba ca gën ba ca gën mooy laa ilaha illallahu waaye ba ca gën suufe mooy fexe fekk luy lore ci aw yoon nga àndal ko te loolu jëf la waaye mu ne kersa bokk na ci gëm yàlla kon kersa jikko la kon gëm yàlla li muy def ci nit ki di ko def ci xeetu jullit yi lu am solo la lu mat a bàyyi xel la ndax yàlla wax na ne jullit yi bu ngeen gëmee yàlla digg na leen ci lu bari bokk na ci dina leen dooleel kàttanal leen jox leen kóolute waada allahu alladina amanu minkum wa amilu lsaalihati la yastaxlifannahum fi l kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum allazi irtadaa lahum wala yubaddilannahum min baadi xawfihim am na loole nga xam ne moom la suñ boroom dig jullit ñi buñ dëggalee seenu gëm muy kóolute ak kàttan noonu la leen diggee it barke ci ñoo xam ne dañoo gëm yàlla ca dëggal gëm ga walaw anna ahlal qura amanu wa taqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard bu ñu gëmee yàlla it yàlla danañu dimbale ndax wa kaana xaqan alayna nasrul muminin gëm yàlla solo soosu moo tax sëriñ Tuubaa radiallahu anhu wax ne yóbbal bi njëkk ci ab murit mu war ko yóbbuloo mooy gëm yàlla te di ko wéetal awwalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min al tawxidi waaye nag gëm yàlla la ci gën a kawe mooy gëm melokaanam yi di ko ca wéetal gëm ne suñ borom subhanahu wa moom mooy dogal mooy def mooy dindi moo mën a jariñ moo mën a lor ni ko sëriñ tubaa waxe radiallahu anhu ndax ne an nafau wa durru min al wahaabi laysa min al aadaai wal ahbaabi ne jariñeek lore ci suñu borom la jóge waaye du jóge ci ay noon wala ay soppe kon ab noon mënulaa lor ca soobul suñ boroom waaye ab soppe it mënulaa jariñ ca soobul suñ boroom wax ne an nafu wa durru min arrahmaani laysa min albidaani wa suudaani noonu lay limee fépp fuñ yaakaar ne njariñ ak mën na faa jóge ca su ci suñ boroom mu xamal la ne loola nag ci suñu boroom rekk la mën a jóge nit ki bu gëmee yàlla day gëm ne lépp lu ko dal suñ boroom la soob mu dal ko bu ko sooboon bu ko soobutoon du ko dal wa kullu ma asaabana lam yakuni yuridu an yuxti ana fi zamani wa kullu ma axtaana lam yakuni yuridu an yusibana min mexani natt boo xam ne moy na jullit bi jullit bi daa war gëm ne suñ boroom la soob nattu booba mooy ko la ko dalit mu xam ne suñ boroom ko namm mu dal ko loola ku ko def rek danga am dund gu dal danga am dund gu teey loola nit ki bu demee ba gëm yàlla gëm googu day tax coonob àdduna day day ko ci moom ca kenn du ko mën a lorit day am kóolute loolu la sëriñ bi wax ne man zanna gayrallahi yugni aw yadur fa daaka fi daarini du kaddin wadur ki jàpp ne keneen ku dul yàlla dana jariña walla dana lore kooku day dana amu coono dana ami lor ci àdduna ak alaxira wala yaasu billah ñu dégg ci ne kon ku wóolu ne suñ boroom ay jariñ suñ boroom moo mën a lore kooku kon dana am noflaay dana jariñu ci àdduna ak ci alaxira moo tax sëriñ bi doon ñu fàttali ñuy taqoo bayit woowu di ko jàng waxtu wu nekk suba ngoon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bañ koo bàyyi di ko yeesal ndax waxuma la mbóot yi nekk ci bayit wi waaye ku dégg bayit wi ak li ci sëriñ bi wax nga fas ko ci sa xol loola sëg dund dina teey di nga am dund gu dal ndax sa lépp da nga koy wékk suñu borom subhanahu wa taala te bari na nit ki lu koy coona yu nekkee mooy jàpp ne am na lu ko dal te yàlla tegu ko ko nit ñee ko ko teg wala am na lum soxla ca yàlla du ko ko jox nit ñi ñoo ko war a jox wala leneen moo ko ko mën a jox loola mooy sonal doomu aadama ci ak dundam kon nañu teewlu bayit boobu waxtu wu nekk te mooy saxal tawxiid ci suñu xol dëkkal ko ci yàlla na ko ci yàlla defal yàlla na yàlla yàggal fi sëriñ bi te yokk ko wér yokk ko tawfiix yokk ko kàttan ba limu mu lépp mu man koo yeggale xutba bi nga xam ne moom la imaam war a jàng it dafa jëm rek ci buntu boobu te mooy ragal yàlla ndax gëm yàlla gi ñu doon waxtaane meññet mi nga xam ne da koy defal nit ki mooy gëm yàlla kon xutba bi ginnaaw bi mu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax ne maa ngi leen di dénk li nga xam ne moom la leen yàlla dénk dénk ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon walaqad wassayna alladina uutul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah kon li mu dénk ñi nga xam ne ñooy xeet yi ñu jiitu woon te yàlla wàcce ñoom ci ñoom ay téere dénkunu ko ñun jullit yi mooy nu ragal yàlla mu ne ragal yàlla nag mooy topp ay ndigalam moytu ay tereem ci sa pas-pas ci say wax gisa jëf ci lu feeñ ak lu nëbbu mooy na ngeen xam ne àdduna du këru dëkkuwaay du kër gu ñuy sax kon na ngeen waajal ëllëg ndax ëllëg jege na lool wax na na ngeen baril di fàttaliku dee mi nga xam ne mooy màbbu bànneex yi loolu bu ngeen ko dee faral di fàttaliku dina tax du ngeen jeng jëm ci seeni bànneex na ngeen bàyyi xel ne yéen a ngi ci bis boo xam ne bisu jëf la bu amul xisaab waaye léegi tey beneen bis ñëw boo xam ne bisub xisaab la boo xam ne jëf amu fa kon ñu góor góorgóorlu ci jëf bala ñoo àgg ci waxtu woo xam ne jëf dootu amati xisaab rek moo fay am te suñu boroom moo wax ne lépp loo xam ne jiital ngeen ko ci aw yiw da ngeen ko fekk ca seen ca yàlla subhaanahu wa taala ngeen bañ a waru ci dunduk àdduna gi bañ a waru ci seytaane te lépp lu lu ñu leen dig loolu dana ñëw mënu leen kenn amul kàttanul fangalu suñ borom namu ci xutbam ñaareel bi mu ne képp koo xam ne nag bëgg naa naan ca naanukaay yu sell yenn ragal yàlla nay baril junt yu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax yàlla moo ñu ko digal ngir ñu am ci ab yool bu bari mu ne na ngeen dundal seeni waxtu ci weer wu mag wii ci julli ci yonente bi sallallahu sallam ak def naafile yu baax yépp ak lépp loo xam ne lu lu baax la lu rafet la seen kem kàttan ngeen di ci dundal weer wi te taqoog tuub ndax suñu yonent bi alayhi salaatu nee na tuub képp ku tuub la la nga cay jële mooy àjjana kon tuub mooy buntu yërmande yi suñu boroom tuub dellu ci yàlla mooy fonn mangu jaamu yàlla yépp te mooy naanukaay bi nga xam ne nit yàlla yi waxtu wu nekk ci la ñuy naan kon nañuy tuub di dellu ci suñu borom subhanahu wa taala di ko tàllal suñuy loxo di ko ñaan di ko toroxlul ndax nit ñu baax ñi kat ca loola lañ nekk wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kaanu lana xaashiin yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala nangul yàlla ñu suñu borom subhanahu wa taala jéggal suñuy bakkaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammada rasulullah ashhadu anna muhammada rasulullah ashhadu an laa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 على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي أمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا وأخبرنا على لسان نبيه أن المتبعين لسنته عند ذهاب الدين وفساد أمته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 fastaidu lil mawti faqad adallakum waqad qaala sallallahu alayhi wa sallam akthiru min dikri haadimi llazzaat xataa yanqatia rukunukum ilayha alaa wa innakum fi yawmi amalin la xisaaba fii alaa wa innakum tuusikuuna fi yawmi xisaabin la amala fii wa maa tuqaddimuu li anfusikum min xayrin tajiduuhu inda allah فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله alhamdulillahi gaafiri zanb saatiri layb qaabili tawb shadiidi liqaab faatixi abwaabi lijaabati liman daa laa ilaaha وإليه متاب فيا سعد من سبقت له الحسنى ولطاعة الله سعى نشهد أنه الله الذي فتح بخاتم الأنبياء من الخير كل باب صلى الله وسلم عليه وعلى ما له من من الآل والأصحاب أما بعد فيا عباد الله من أراد أن يقرع في مناهل الصفا فليتق الله وليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى فقد أمرنا الله بذلك لننال منه أجرا عظيما فاعمروا بطاعة هذا الشهر الجليل وبطاعة وبنوافل الطاعة وبما أمكن من الإحسان قدر الاستطاعة قال عليه الصلاة والسلام الجنة لكل تائب والرحمة لكل واقف والتوبة إلى الله miftaaxu abwaabi rraxmaan wal inaabatu ila llahi subhaanah hiya asaasu libaadaat walqurubaat lam nazal lam tazal manhalan كريما يتواردها الأصفياء وشرابا طهورا من شراب العارفين بالله والأتقياء وهم يتضرعون إلى الله بالإنابة والاستغفار ويمدون إليه أكف التذلل والانكسار تائبين له خاضعين كما قال تعالى ويدعوننا yaghfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimiin amiin allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa allahu akbar allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى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 هل أتيك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقي من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها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 asalaamaaleykum. asalaam.